لمن ربي في المالي يغني عن المدافع بكل أرض واسع يدوب خير الهرم كان يولد ضياء كما يولد كرما وهو غني الانفلاء بربي المكرم téléspectateur u seen zoom man soxna yassine Diouf ma ngi len di nuyu bu baakha a baax di am contentement ak mbekté bu rëy rëy di jàkkaarloo ak yeen ci guddig yonent bi alayhi wa sallam xam ngeen ne ñun ñogi fi nak ndiarém fassiyene leena wan euh, gamu gi nga xamante ni mom la wa ndiarém di def ko Serigne Touba ñeké won ko fi mom mi nga xamne fi la def fukki at ak juroom yo xamante ni nii macha allah fu fi guddig bi fekkee rek mu dal di koy def ba taxna nak euh, tay ñogi fi euh, di jaajeufal yi nga xamante ni rek ñom ñoo ñuy topp ci 3W point senzoom point info ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax que ne nag euh, dinañ dugg fi nga xamante ne nii rek moom moo di daaray kaamil wan leen ñaag euh, euh, yi nga xamante ne ni moom la nit ñi di fa def ñu ziar bu am solo bi waaye bu loolu weesoo bu ñu nee daaray kaamil rek ngeen xam ne dañ fay wàcc ay kaamil jàng fa ay alxuraan ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax nag ñi nga xamante ni nii dañoo jóge dëkk ak dëkk daal di nekk fii ci jumaa yi Serigne Touba ji. dinañ leen daal di nag euh, dékk leen suñuy kàddu ñu daal di waxtaan ak ñoom nan la ñu bu guddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee rek ma daal di ànd ak ki nga xamante ne nii moom moo di madame Diop euh, nekk sama yaay sama xarit ci liggéey bi ba tax na jawrin Yankooba daf may daal di topp rek ma daal di euh, dugg biir daaray kaamil daal di xool ñaata kaamil lañ fa wàcce ak ziar bi bi nga xamante ne nii moom moo nekk daaray kaamil jërë ngeen jë Euh, mbokk téléspectateur u seen zoom man soxna Yacine comme ni ma leen ko waxee woon rek ci buntu kër sëriñ bi macha allah dugg nañ fi nga xamante ne nii nag moom moo di daaray kaamil ñu fekk fi ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñoo yor wàllu woowu macha allah euh, naam sax dañuy wàcce kaamil bés bu nekk waaye guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def cee rawati ndax nag loolu rek moom mooy seen liggéey te it dañ leen koo dénk ñu di ko defar ci anam bu gën a sell ni ko sëriñ Touba bëggee woon ba tax na maa ngi toog ak mbokki taalibe yi euh, ma toog nga xamante ne nii moo di Serigne Abdou Lahad moom Serigne Abdou Lahad Gaye macha allah mu nar ñoo indil ay leeral ci wàcce kaamil yi nga xam ne def nañ ko ci guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gannaaw wàcce kaamil yi nekkin bu rafet bi nga xam ne moom lañ nekk ci barab bi chaque jour waaye nag tey guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee raw yaakaar naa luñ doon def benn rek ci guddi gi foog naa ne uh, def nañ ko fukk kon damay bàyyi rek mu daal di nuyoog téléspectateur u Senzoom sëñ Abdou ñoo ngi lay nuyu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 rafet lu seen jéego yi ngeen dox diko ko gëstu ba yexi fi ci fi nga xamni moy mooy hmm, ci dawati na ak barab bi nga xam ci lañ tok muy daaree kamil ji nga xamni ne bi moo ko doon ci tànkam 1913 mu doon barab bi ñu tok serigne Tuubaa moo ko doon 1913 tanno nit ñaar fukki mak ak ñet euh waxon leen ni leen sa borom soxla na dindi bi waye dama rus dal di wax ni sa barab bi bu set na ngeen fi saxal juroomi kamil dal ne juroomi kamil yoy nak sa yu ngeen te ko rek aljina tukki. daal di wax ne fu sët nit mën a nekk ci na jàmm ja muy am sama juróomi kay mi lay bawoo ni ba ca tubaab ba ca tugal daal di wax ni képp koo xam ne xamoon na ni jàmm jam am fii lay ab bawoo de lu am dana ko bokk ak yéen daal wax ni su ma doon am ak njaboot de ñiy jàng sama kaneel bi ñooy sama njaboot waaw suñ Mbay Saar waxoon ko ne ko gannaaw ñooy sama njaboot boole ma ak ñoom ma yor leen si ñu ko jël Babacar Saar ñu yàlla rek laa leen di booleel waaye du ma leen kenn loolu mooy cosaanul daara ji sëñ bi ñu ngi ko rëdd 1913 ñaar fukki nit ak juróom-ñett yi mu tànnoon it ñu xam ne jëmmi sëriñ bi ci la bokkoon ak jëmmi Seex Moustapha al Karim ak jëmmi Alaaji Fallu Mbàkke sëñ sëñ bi fee la daan taxaw ca palanteer be tàllal loxoom ñu teg ci jigéen mu jàng ko door a dem euh, loolu it sëñ Fallu dem demee ba ab diir moo woo bàyyi Baye Soulay Gaye mi nga xam ne moo jiite daara ji fi mu toll daal koy wax ni ko euh, daara kay man joojee sëñ tuubaa dañu cee boole woon maag Seex Moustapha te amatuma ak jot sëñ Mourou Sow nekkatu fi daal ne kon boo demee na nga boole suñu ñaari jukki laal ni ko deel jàng jukki bu rëy te loo am yóbbu ko fa loolu bàyyi su la ko wax ni loolu la ko Alaaji Fallu Mbakke waxoon ko demee cosaan la loolu la loolu la waaye fee jóg ba tey sëñ bi moo ko digle woon ñu di ko jëf ba nëgë ni mosu fee jóg it nag ba ci 1927 bi mu fi waaj a jóge sëriñ bi jël xasida gi ñuy wax Taysiirul Xasiir séddale ko juróom benn bunt muy yallaahu yaa man laa ilaaha xayruhu salli wa salli man yaa musawiru wa salli yaa raafihu wa salli yaa xasiibu wa salli yaa muxyi bi charhi wa tiini dem ca kër sëñ ma jëm ba sa liggéey dal ni ko ma jëm mu ni ko mbàkke mu ni ko saa borom de damaa mooyoon alxuraan waaye damay bëgg a tukki bëgg la koo dénk dal ni ko xat bu bu ne nag am ngeen ko waaye xat mu bii laa leen di mujj a jox ba keroog ngeen may fekk yow mal xiyaam du ma soppaat xam mooy Taysiir nga xam ne bis bu set bu ñu xëyee danañ jàng benn buntu Taysiir jàng benn eh, jàng ñaari kaamil ci suba gi bu ngoonee ñu jàngaat tisbaar ñu jàngaat bunt bi jàng benn kaamil ci tisbaar gi bu takkusaan ñu jàngaat bunt bi jàng ñaari kaamil ci takkusaan gi muy juróomi kaamil bu subaa ñu defaat ko loolu mooy li fi sax ba ba fi mu benn yoon noonu la ko suñ tubaab digle woon noonu it lañ koy doxale rek nga xam ne mosu fee jógee benn yoon mosuñ koo jëlle it ndax suñ tubaab waxoon ne boo ko leen jëlal njabootuk suñ tubaab gépp it ànd nañ ci loolu yi di ko defandoo ak nun ndax euh, dégg naa bàyyi su lay wax ne sëriñ Abdul Ahad nafaana allah barakaati mas naa xëy génn suba dal ni ko sullay mu ni ko mbàkke mu ni ko lu yàgg yàgg kaamilu takkusaan bu len ko tijji te ñëwuma maa koy tijji ci tay neena na tok nañ sax ba takkusaan weesu gisaguñ ko waye bi ndee ba jant bi tollu ci wara ki kii bi dal di sëñ Ablaay dal di ñëwal boppam fekk da jàlloon ko sëñ Ablaay Faal Ndar dal di duggal auto bi ci bir kër dal di yegg si toog fii daal ni ko buntu buñ wara jang tay ci tay sir mu ni ko salli wa sallama ya musawir neena na bi jangal ko bopom bam jeex tak mu dal di juróom jukki dang jang ba jukki bi jeex mu ni ko nu ñuy defaat mu ni ko bi ngay jàngaat ñaar yoon sëñ laat jangat buntu bi ñaari yoon bam mu jeex mu mu daal di jiratu juki jang jangat buntu bi dal di kay bi dal leen dama bëggoon a waxtaan ak yeen ndax fune ne yéen fay deg ci réew bam fi toge batay tey déggagu leen ma fii waaye nag fii damaa xam ne mënta ñàkk fokk mu ñew fi motax yakamti wu mako dal woon waxtaan ni ñett kep lay doon mooy bop ak ndigg ak i tànk daal leen bopp bi moy yeen mag ñi fi Sëñ Tuubaa bayyi won digal len liggéeyam bi digeluma len terewuma len la leen Sëñ Tuubaa digaloon bi ngeen ci nekkee yéen xam bu ngeen ci nekkut ëllëg yéen koy fekkaay mu dootu fekk si kenn mm-hmm. kon yoon sëñ bi wàccoon ak yéen yéen waxuma ci yéen dara daal ñu leen li mooy ñoo ñooñee am na fi ñoo xam ne jóge nañ fi seen doom wuutu leen fi mm-hmm. daal ni doom yooyu dama cee dégg ay chef de quartier dégg ci ay commerçant dégg ci ay tailleur ba bëgg ngeen xam ne lu ngeen mën di jàpp ba tax ngeen sàggan liggéey suñu bi du ko jar ci yéen daal ni tànk mooy am na ñoo xam ne seeni way jur bokkuñ ci woon ñooyut bokkuñ ci dañ leen a xool ñuy ay seen loxo set ñu dugal leen ci biir mag ñi daal gone nag li ma koy digal mooy bu fekkee mag ñi dañoo xëy ji daw ci kursu ñu daw ba tisbaar ñu door laa woo ñu dawal dabi mag ñi boo sampee saw xel boo tax mbaa nga attandiku doo dab kenn daan loolu rek laa leen doon leeral daal lampoosam génne ñeent fukki junni juróom jamono ya daan lii maa leen ko jox du ma leen ni weer wu ne nangam laa leen di fay waaye fas naa ne lu ma am danaa ko bokk ak yéen daal su ma yeggee danaa fi yónnee téeméeri bëri koy dugub loolu mosu fee dakk ba bërki dem la fi Seex Mouhamadou Mountakha mujj yónnee yëfi gàmmu loolu mooy Euh, mooy daaray kaamil la mooy gàmmo gi tax ngeen jóg gàmmo gi it sëñ Tuubaa moo wax yi ahyaytu mawlidan nabi min ashashi wan xaadal yi fa waxal mun naa fii talsashi suñ Tuubaa dafa ni ashashi laa njëkk a màggal ca gàmmo ca Gabon waaye booba àndut ak genn gàmmo waaye sëriñ bi nag daa bëggoon suñu borom ba fu mu toll suñu borom rek la fay nekkal kon fa la njëkk a woote gàmmo ca Gabon donte kenn nekk fa waaye mu dundal guddi ga ngir guddi gi day guddi gu màgg a màgg ci lu yonent bi feeñe woon jamono ci lan am lépp te yonente bi moo tax ba yàlla naan bi rabbi naasi ak maliki naasi ilaahi naasi yoneen su fekkoon dafa def malaaka kon yàlla day wax malikil malaayika yoneen bokk bokkul woon ci xeetu naasi kon ñëpp dem sawara ngir xanaasi kon suñ tubaa yàgg naa màggal du guddi gàmm ca gabon waaye nag euh, wan xaadali fawqal mun naa fii tal si kon dafa wax ni tal sa si nag muy njëreem gi ci la ko xéewali gàmm fekk waaw fii tal si euh, maanaam euh, njëreem ci la suñ tubaa a màggale tubaa waaye ci la njëkk gàmmoo it jurbel la njëkk a màggale ca tal sa sin la xàggale fii lanu bàmba jommale ca yàlla ahmadul mbàkke laxoo xitaabi xaama tal sa sin dadaa buqatee da tidnir bada suñu tubaa nee na fu di la mooy mooy mbirum gàmmo gi ak guddi ñu dëng rek ngeen jéggal nu ko lu ci jub ñu bokk sant ko suñu doom waaw kaamil bi moom ni koy defee mooy bis bi sa juróomi kaamil waaw bu ñu xëyee daal danañ jàng ñaar bu tusibaaree dana jàng benn bu tekk sañ dana jàng ñaar noonu ñu la ko sëñ tubaa diglee ndigalal tubaa daa amut yokk amut wàññi waaw ndax suñ borom lépp suñ tubaab mooy lépp suñ borom amut si tool ni yàlla bi mu diglee ni julli tisbaar ñeenti rakka la bu amoon bisub ajjuma nga ne tey damay xel def ko juróomi rakka yàlla daan bëggatuma ko ndax lam digle da ko koo weddi da nga yokk moo tax li suñ tubaab di kenn du ci yokk lim digle mooy juróomi kaamil juróomi kaamil lan koy jàngal bu kene bu jeexee nag keneen ko ne loo mën def ci lu baax ci guddi gi defal ko Sëñ Tuubaa baax na waaw Sëñ Tuubaa ndax tuyaaba du doy mukk waaye ñu xam ne daal fii moom mooy njëriñ Sëñ Tuubaa ci daan gàmmoo gàmmu gi guddi gi sëñ Tuubaa daa wut nelaw mag ñi dañ daan toog di jàng jës bu mu waaye mu xaddinaal ak barsan sëñ bi di baagante géew yi di yor ay xéewal di leen ko sànni di dukk dukki ba fajar sëñ Tuubaa daa bëgg yonente bi lu mu am rek bëgg yonente bee ko may lu mu am rek tagg yonente bee ko may lu mu am it bëgg suñu borom rek ko may ndax moom rek moo bëgg moo bëgg yonente bi egsi ci dammi fi daawun li xuroo ji dammi yi wa maradi fi daawu jaahi jismi yi suñ tubaa nee na sama tur deret moo tax yonente bi turu deret sama moo tax yonente bi tawatut maa ko defaale ko bëgg bëgg suñ borom te ku bëgg suñ borom jariñu ndax yonente bi waxuwa ak fi sëy bi jële ngeen jëf kon lii rek ñu ngi leen di ñaanal bu baax nag suñu borom taxawu leen te sàmm leen te lii ngeen di dox yàlla defal leen ci ndam yéen waa télévision bi ak ñi ngeen àndal ka ko jiite ba ca ka tey mujj kenn ku ci ne lam cay sàkku yàlla defal ko ci lu kawe njortam ci darajee Seexul Xadiim barkeb guddi gu mag gi jërë jëf ngeen jéggal allah allah mu mel ni ñun waa Njaareem dañoo am lu kenn amul waaye itam dañuy téye lu kenn dul téye dañuy bëgg lu kenn dul bëgg ndax yaakaar naa bu ñu bëggee Serigne Touba keneen ku ko bëgg rek ñun ngay gën a jàppale ndax yaakaar naa fukki at ak juróom yi nga xam ne moom la fi Serigne Touba def àdduna dootul yàgg dootul neex dootul gudd ba mu ba mu def ko fenn fenn fenn kon ñun euh, Serigne bi def noo dumbali ndax nag bu si bu bu fi Serigne Touba nekkutoon wallahi azim ñun duñu xam sax lu ñuy doon ba tax na li may wax sax xamatuma ko ndax euh, murit boo tuddee ab sëriñam rek daanu da koy daal di dikkal kon sëñ Abdoulahad jaajëfal bu baax a baax sëñ Abdou Lahad nag li mu leeral euh, bettu ma ci moom ndax nag ku ñu tubbee sëriñ Abdou Lahad Mbacke noo mën a def rek di nga xam yoon wi di di nga mën a joxe ay explication yu leer a leer ba tax na guddi gàmmu gi moom bala ñoo njëkke fenn dañuy njëkke daaray kaamil ndax comme ni mu ko waxee rek yëfi sëñ bi la te sëñ bee ko téyel boppam euh, ba tax na nag ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax te ma bëgg yéen itam ngeen ñaanal ko ak euh, mboolem nit boo xamante ne nii rek moom la ndekkandool fii ba tax na nag dañ koy daal di bàyyi mu daal di def li nga xamante ne nii moo di ñaan ma daal di feggoog sama yaay jooju madame Diop mu fas yéenee dugg ci biir kër Serigne Touba fas yéene leen faa defal ay reportage yu am solo su ko defee rek jëwriñ Yankoba ba daal di daal leen di wan fi nga xamante ne nii rek moom moo di bërëb bi di biir Daaray Kaamil ndax am na ñi nga xamante ne nii dañoo nekk biti réew bëgg koo gis lool nag te mun euh, suñu borom jàppandiwul kayit yi ba tax na nag euh, Zenzo moom moo leen ko fas yéene woon incha allahu rabbi du ngeen ci tardé. mbokk téléspectateurs yi euh, man soxna Yacine nag maa nekk nii si biir jumaayu Serigne Touba ji xam ngeen ne jóge woon nañ fay nga xamante ne nii rek moom moo di daaray Kamil ñu daal di fay seq ku ñu naan sëñ Abdou Lahad waxtaan bu am solo ci digle yi nga xamante ne nii Serigne Touba digle woon na ko ci jumaayu Kamil ci daaray Kamil bi. muy euh, chaque jour rek ñu wàcc fa juróomi kaamil yoo xam ne dañu koy dimbalee askan wi macha allah ah, ba tax na waxtaan bi ñu fa jëlee am na solo lool ñu àndoon ak madame Diop itam mu daal di amal euh, waxtaan bu am solo ci oustaz boobu noonu macha allah waaye mbokku téléspectateurs yi xam ngeen ne man soxna Yaasin nag fii laay tàggatoo ak yéen daal leen di bàyyi ak euh, jëwlin Yankooba mu daal di wéyale programme bi ci gàmm gi ndax na guddi yonent bi sallallahu alayhi sallam la ñu wax. ba tax na macha allah dañuy fanaanee guddi gi bu baax a baax jàng xasida euh, durus euh, def li nga xamante ne nii rek euh, moom la Serigne Touba bëggoon bu baax a baax waaye di jaajëfal sama caméraman ki nga xamante ne nii rek moom moo di jëwlin Yankoba ndax nee naa la image lu mu rafet rafet yow la ba tax na ñoo ngi lay jaajëfal yàlla na say tànk wér xam-xam bi gën a yokku waaye maa ngi jaajëfal sama monteur di Baara Sène am na mbégte bu baax a baax ci équipe bi nga xamante ne nii saa su nekk rek ñoom lay àndal ci liggéey bi ma bëggoon leen a jëlal nag ziar yi nga xamante ne nii moom moo am si biir jumaa ji waaye jumaa ji xat na xat boo xam ne itam euh, fu nit taxaw pour def euh, li nga xamante ne nii moo di reportage day xaw a jafe ma ciy jégalu bu baax a baax di di ñaanal ñi nga xamante ne nii rek ñoom euh, ñoo nekk ci dëgg këru dëgg gi. di len ñaanal ci guddik tay yal na len suñu borom duggal ci àjjanay wa yi waye ñi nga xamne ñom ñoo tedd ci lolu hôpital yi ma ngi ñaan ci barke guddigu tedd gi yal na len suñu borom yëkkati waye ñi nga xamne dañoo feggo ci seeni kër te yor metit metit sonal len lool ma ngi len di ñaanal suñu borom itam yal na len dimbali fëgg seen bop jok ñu rew mi yëpp am jaam waye nak di ñaanal ki nga xamanteni ni mom modi serigne muntaka basirou sama sëriñ bi euh, yàlla na fi yàgg lool te wér Mbacke Balla yow ne sëriñ Mountakha Bassirou loo fi yàgg doyul loo fi yàgg doyul Mbacke Balla dundal dundal ba say may di baawaan dundal ba say may di baawaan waaye xam ngeen ne programme bi nag day continuer comme ni ma ko waxee saak maa ngi leen di jaajëfal euh, di kontaan bu baax a baax euh, man soxna Yacine Diouf lii laa leen indiloon ci guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf waaye di jëfal ba tey waa diaspora bi euh, ndax ñoo nee naa la ñoom amuñu seen fay ndax nee naa la lépp lu ñu dugal rek mu bari ay vues lool lu ci ëpp ñoom la maa ngi leen di jëfal bu baax a baax di euh, di ci tànn ay quelque rek muy ki nga xamante ne nii moom moo di Cheikh Mbaye nekk fële ci Italie macha allah mu ngi partage vidéo yi bu baax a baax di jëfal yaa yaadi moom mi nga xam ne moo féete côté Maroc moom itam moo ngi partage vidéo yi bu baax a baax. waaye di jaajëfal Serigne As Bamba Sylla moom mi nga xam ne moom moo nekk Espagne di la wax ne taalibe Serigne Cheikh Say boobu dafay bëggee seen zoom di partager samay vidéo maa ngi leen maa ngi koy jëfal bu baax a baax waaye di dem ba États-Unis di jaajëfal Tafa Thiam bu baax a baax daa di ñëw ba fi nga xamante ne nii rek moom moo di Argentine fekk fa Galas Thiam euh, euh, Bas Thiam euh, Masok Thiam di wax ne bëgg naa ci yéen bu baax a baax ndax saa su nekk rek. lu ma dugal ngeen partagé ko aw ma seen fay benn yoon waa diaspora bi yëpp maa ngi leen di nuyu waaye di nuyu nag ki nga xamante ne nii macha allah kenn la ci man nekk sama xarit nekk sama yaay muy soxna ma isa mbàkke ak lu café yaa dundal ba say may di baawaan nuyoo bi nag wala tàggatoo bi gudd na lu lu ko ko ëpp lu lu rek morom ja fekki te ñaari weñ saa te ñaari bu ko ñaari nit di ku sa morom ba bàyyiwu leen weñ gi benn yoon mu gaañ ma maa ngi leen di jaajëfal di am contentement ak mbégte bu baax a baax kañ ngay tëj. يبلغ خير الرمي